cheikh Moustapha wal Moustapha warisal xadima bi sirrihi wa bi xilmihi wa bi ilmihi doomoo di baay fusum bi kawni al Moustapha xad jaarakum xad jaarakum ma ahlihi ya ahla ngaay yay sangi ko gandaam boole nga ko ngëni li daam rangoo amoo ci xarnu bi murid yi jox na lay hidaay tubaab yi na lay médaay sultaan nga boole ko laay yaa mën a tàggat xarnu bi ala na ngay buuru murid قادرين ndax yàlla naa tànkar bi yàlla na ngay muuri te yàlla doy muuram may bi xaqi qaadirin ndax yàlla naa tànkar bi yàlla na ngay muuri te yàlla doy muuram may bi xaqi qaadirin نخجل نعت الخرم بي ألف الورى من سكن المستوى ورث الخديم ولاية دم دباي ألف الورى من سكن المستوى warisal xadima wilayatal doom moo di baay fal mustafa warisal xadima bi المصطفى ليس الخديم بنوري والجمال والجلال ضم لباي فالمصطفى ليس الخديم بهلمه وبهلمه وبهلمه ضم لباي فسم بك المصطفى خجالة أزاركم علي يا أهل الهي ينوار كجار تنو لن مباح ورغينا تن مصطفى أبلان مبتد يا أهل يا أهل الناخن يا خلن تيك مصطفى يا هادل بكرامه يا خلال يا أهل الناخن leen ci Cheikh Moustapha bi salaat bi karaamihi am yenn daay daaroom ya mooy Tuuba wa usumaha bi fa mën dem na siyaare ji ñaaxeen mbaa ca yaa Ahmad ibni li Muhammadin li Muhammadin yowmal xiyaamati sant leen sunu way waay Cheikh Moustapha yaa neex a àndal dal nga xel wa yi fi aguloon jébal sa baay wa mat gumba boot na fa ñi ka gal fono gura jigéen di jox ay càngaay ku daw nga dab ku la nga fay le te doon fay wala girim yeeg baay yaay seeni baay yaa nuy taral yaa nuy yaram may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jenn waay aya teraangay mag ñi Bamba yoraale moo tax yelif la ba jàll Saalum jàll xaay nga xam teraangay waa Kajoor ak wamba ganaar wamba di wolof kenn réeratul yaay ci taru baa doole yee di fi sant yaay yaa Muntaxa Muntaxa Muntaxa yawmal qiyaamati rangaleen fay mi daa miskin ya daa Seex Bamba ci wen sa suuf Fernande seen doon ko yelamat la ko waay Seex Bamba ci wen sa suuf te na ko seet la ko waay yelamat la ko waay Seexu Sawaaf mat yaqatul daw tuuta tuuréew a ngir bos ni kat mosal ngeleen yaa fi sa baay yaa tee ña gub nu saqi ko ba doxoo yaay jënoore yi yaa tee murit seen mbaar mi naay yaa boole ya boole jën yële yëpp car li ahlina yaa wilaay yaa boole dongo yi boole bokk yëpp yor yàlla nang fi dem da njaama dugal waay taalub murid yi la yaa ko yaa tee mo fay maa la ko xamal du fay saw du daay taalub murid yi la yaa ko yaa tee mo fay maa lay xamal sab du fay saw du daay مجتبى مجتبى مجتبى يوم القيامة ñi ñu yaakaar nañu ku la am diiree ko amuree ku la ñàkk rus loona yi diiree réew yande mbaalaa xub safoo day gën di duutu nu soof ku ko weddi seet kase duutu kaas tey jii baraay